الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حق المسوق والأمين نبتدي عند أمده ثم نمدي نصد الأقوى وجل المتين ثم تسكار وفده وهو ود من كريم وهو الجليل ونقف وإذا أيضا نرجي عفو القرآن وهكا يكون حيث كنا la la Jaya I know. la la la لا ينبغي لواه يا كريم mooy maalikul mulki te mooy wahaabu duxut ku ñuy diggal ki day xëhaaru moo ñu amal ci coobareem tiisoohul te bu ñi fi jëlee halal kon bismillaahi maa ngi sol muy mandil ma woykat yaa woon ba jot seen may yaa laa ji maaw ngir woy baraama bañ xam ne moo doon rasulullahi kon ahmadu jaw farlul te dellu xaatiru te jéem a wax ni ndéem yi kuy sa waaja yàlla ñu tànnaloon xalilullahi ko muy imaamul awliyaa yi yaa rabba dem moo rawoon diina kenn musta gis kenam na leen ma gonga diglul ma wax la fam rawee ma sanga nga dal de xam ne moo doon mu rasulullahi te wax ko ci wolof bañu naan pour yaaram te réeree ay mbiram ñu xam kuy waaja yow ma alastu la bàyyi ra woon kuy maasam moo njëkk a wax ba léegi gannaaw rasuul ñi dal ko fay soral mantam limaana cappal ko rangal ko garaati xutbu yow كرم نجيبت كل أوليائي روحي نقبل قليل الله رسول الله يركو فسللكو نندركو فوبا كم كم ديرايا بلال دكو تيجيل مجال لا لا مثله بالله ما قول لرم كوندي جلتي جبرون فلا بي جلال بكون فالغاي واجا ñu dal te jël ndam li ku xam ngëneel billaahi moo kaajal leeral nga jallati malakut falamate ba motti muslamaan kii baay moo doonu taar mooy borom basiira ku ñëpp xam la min ka mos la hiidu leeral nga kondiim jalla hijaabul maarifa lii moo waral kum yar nga nekk maarif ba fa ba hoola dal di jëm ngi jox fa suñu maam ja abdallahi ndeysaan muy góor gu mat ku ñëpp xam ci diina mu boole mandu ak jëfoo sharia mu gàddu leer ga dem jolof kii bokkam ngi jox fa suñu maam ja astu jànka kookaale soxna saara woon kii soxna njànq ma raw na xayma jël na ndam la maam Abdallahi dal te jëm Saalum buuru mbaxee ba gis ko def ko xaatu ñes nekk na Gàmbi nekk na Kër Samba sanc na Tayba mooy dalam baraamu xatum bi diw ba mooy dalu baraamu ci awra jàpp ديسمبر يوم الخميس في وقت العصر لقطب وادي سولان كان يارسي يبوري بالله guddi keroog la leer ya yëpp jolli lislaam di fekki ngir déggee juddum ba kon mawliduhu juddum ba jar naa màggal ne jullit dogal màggal ko mawliduhu juddu ba jana màggal képp ku ne juli jógal màggal ko ku bëgg tedd fii ba ñépp xam la nga jaari aljana jógal màggal ko màggal ka mooy màggal rasulullahi billahi gëñ naa ko bi samba dir si baay koy yente jibril a wax si tur wa maam alhaaji nan ko nan ko tuddee xalilullaahi kon daga gis ci moom karamalaahi mu dal de koy tuddee xalilullaahi ca yooya la gis ci moom karamalaahi mu am fa ñetti at noonam yàqee ko ngir gaa yi bàyyi koy indi hidaaya ñu dal deqi kalaame ko waa góor ña koy fexeel seen dey la farne weeru ngiral sëriñ Mamadu yi la fa nekki ñooro kookaa yëgal si bi mamaam alhaaji ñi daan taalibe pëlaw ba ñaan galaajo te daan sàmmoon nagam ya moo ko feeñal waaye man la ma wax baraama moo ko feeñal ca xal la njëkk a feeñal xarbaax fii waxtil asri laay digal baayam ba ca yowmul axdi ñes billaahi mooy waaja maam xam te laay ngay wax ndongoom ya ñu jël bagaasam ba delluwaat fa Gàmbi noonam ya ñëw fekkuñ kenn fa Tayba ñu def lu ñaaw taal këram gaag jàkkaam ja sax dafa gàm fukki at yu mat sëkk ndigal la del si naan ko yaa Abdallahi waajal te dellu ñes yàlla moo la isaamoo te de demee dëkkal fa ñoom bul seeku looy def ñi gis ko kon danañ la feeral maam Abdallahi dal de wax ndongoom yi ñu jël bagage am yi del si waat fi réew noonam ya dellu kenn waxaat bindaa Ali ñes dem na dagg demner yi bambu ngir sàmmu leer ga ñes billaahi moo farlu mu sanci ko si kom ma mel ni waane bam fa ba xoola la def fa Kaolack képp ku ni gëneel damal fa Kaolack barhama ke si waade barhama teg ko ci njaboot gi ba ku ko gis sopp ko ngir taaram ba ci fukki at yu teg lu tullaayaaru te dégg alquran baraw ku yaarin ci ñaar fukki at la taarim téeréem ruuxul adab ci li bi jommal naari mu jox ko baay baat baay ba daal koy jàngal xam lum ca gis rongañ ba dal de tuuru ñi teg te ñetti xam baay ba dal na feebar te def ko fukki fan feebar ba yokku mu xam ne dexel bi mat naa léegi mu faatu bu dal dexoo njaboot gi pour dénkaane xoo xalifa dénku ko njaboot gi alaaji Babacar la jox jàkkaam ja jël téere yëpp jox alaaji mut sëy na bu naan ko dencal kuy sàkku kam xamal ko tebul ko gàntu kuy sàkku alquran nga jox ko kaamil seetil naay mbiram ba ku nekk jot kiram ba be seet suñu waaja barahama tëj suñu waaja baaya ba ni ba ñoo tuudeeg mu woo ko te ne woon ak ba dag di teg buntam ya lañ wax ca foofa duñ ko wax ci mbooloo yàllaay ki kam xëy bu te moo ko mbootal ba man nag baay ba dal de faatu soxna ye muuru ndongi yépp jaaxle barxaama dal di fay di sax bagam ya ñu jël ko yóbbu koosi jox ko daara ci fanweeri xatam la feeñal faytu ngir xam le sell boroomam sëriñ bay rakkam moo di taawam moo njëkka naa kenn yére ni ngir ma weeru maam xabdu ñag cheikhu xomor ñoo kaatu ci aw korite coola fanbe gañ seen bokku ya mer dal di leen génne keroog ñu hendu saam ngir saamu diina fa la julee subaar keroog bay da xutba kàddum ji raw na ay xaram ci xol yi keroog laay xutba ba wax ni aaya la taqafu wala tëgsanu lii moo waral keroog ñu min bi joona du xeetu pal dum laa bay du séeréer teerañ falaam bilaay keroog jaayante ñex natal gi riibi siin natal nga waa saanum natal nga waa jolof ba jam na fuuta natal nga waa Casamance waa Gàmbi basonse saag jolaaye yëpp maandi ni woona selki fay fa neegi banjul te sir kebaabi tey a xaaji maa mbay serleer ya kondi jàllareeri murtari naar yëpp daw hebal si koosi ka njëkk ñëw kookaane bu nawi ñaal ba seyxaani alhaali haali bay juróom mi ka fa neegi koosi ñi bokku sar kolle te naan ko maalum lee شكري يا رسول الله نفرد قاموك يو دزيارة ستم رسول دجوكن الهداية موما قمن ركة من كان واجا نستبل لي تركة تبل لي موسي تبل لي كتو كوليك جارمي تبل لي كتو كدو كن من دلم موكال نري حوصا هورنا ساني فلنكو مخدق دال يا نجلو هم بالله يس ñoo la wóolu nabil nga nooni diina ba kenn yëngootul li fi tëxoon ñi daan jihaat te de ko puukaroo ba yaa ko amal te sax jubul yaay waaja ku weddi lii ma wax demal ba léegi toog ni nga dal de gis lamin kadal nga waaru kenn mosuwa jéema taxaw di kabaram te xel na jul fa jàng alquraan ñi jaamu ay xëram da tuuru ay jalan te sax ci mooy ba faw xamuñ lu jaadu min kaa ba dem màggu seen delang yaa te laale seen xeram ya dal de sampu daara ren dafa jàkk ñu si kar noonu kenn da juturu xeram ya billahi may waaja kon alhamdulillahi ñu sant rabbana tegam dogal yi jiima muñ nattu bi julit bu xam nattu ndegam dogal ba te muy tëddug te dellu ci boroomam nattug julit daa yokku ay maqaamam seetal ma awliya ya yoneen ya kenn mos ci feeñoo ngir liggéeyal boroomam te xaddu nag nattu ba jan mayam ya fakku nga jaara ci nattu ya ak baraaya mun ka ba jan may ya boole ngërëm ya diggante a aadama barhaama mi jam kuñ ma soyónni jaar na fii billaahi na jéem a dëddu xëddu naa ngoram gi jorloo hóolu waaju laa ko ay hor ku tapu taaram yi de mu hen lab coona doo ci jëlee njëriñ lu dul musiba xamul ku baax ba kul ku baax ka cor la li may rafet rafet mbiram lu jeex la yow laa tari wattul ma yi ma bu jëf lu rab yu li lu ñaaw la moytul kañaan bàyyi ma a ak wax ju bon bul bul xarit mbaaxaada ndoor buy def lu bon mandul ci lépp loo ñàkkul ba moom ko doylul ci rabbanaa borom wërsëg xëy lum la joxul soo ko bëggee daw coono yow saa tarit royal ci yi ma lay digal ci xeeti mbaax soo ko defee mu lay jëriñ fexee la jox gàddal la jéema tarbiya soobul ci yoonu góor ñi mooy li lay jëriñ fabal kurus ga faglu jëm te jàkka ja xamal ma tàggi ci képp kuy jurit yëral ma alquran ya hadis ya loo ca xamul laajal ko xam wax la foo mën a dollu foo mën a tollu yaa ngi dina ko xaalim bu rëy nga laaj ko lii lañu si bàyyi ba daan waxtaana da na nee nga def na nii moroomam faw danañ ko fekk bàyyi digal na yoonu baax wala ñu sataani ku jàggul jéngoo bilaay du rekk njaaraama barxaama ne leen njaaraama jaaraama barahama ne leen jaaraama jaaraama barahama ne leen jaaraama moom rek moo xëyoo jaaraama kenn man de lim lim fi liggéey ci diina yàlla nañ des ak barkeem ba bañ koy fekki ci barke Mustafa leen amiina bi xormati siddiqi wal faaruqi bi xormati nuurayni wasitayni jawjulil ci mustalaami ñépp booloo ndax yàlla dem sa bay yi muy faru suma salaatu ala muxtaari alihi wa sahbihi alxiyaari amiril muminina bi fenna ci réew yu sawdaana borom faasa leen di may mooy si di bara amoon a sakk leen tada daw gaaña diiŋa tom bay ku yàlla xalaat dangay diiŋa sidi bara amana gayndem ñamoor ji war nga da xaacu yaa da lampu faar leeral nga àddina ak la ca biir sidi bara amana dama gëlëm dama pimpin xuus naa ci géeji leer yi sama xol bi dafay say ngir sopp bara amoon na lëndam ci kaw lëndam taras xaw ma dee ci neen waaye sam su fenk naa andi daar si di na li ma nekkee duut bëgg a ngaawaaw sabul noor nan na ba mandi nu ca leeri sidi bara amoon na mbindee fi yàlla ga na leen du naan bokku leen ci du ngeen mën a gëm bara amoon na leen mbindee fi yàlla ga marwaan leen di gaañ Ibrahima Juuf ñeexut ku i Sëriñ Bara mu ne man li ma nekkee duut bëgg a nga waaw sabur noon nanga ba man di nu ca leeri Sëriñ Bara mu ne xabta taxu doomi ma tey bu leen tànqal Baay Ñas yàgg nañu fi yéen te sidi baral amoon a sama xel maag yu ca biir géej ga ñu roota ndoor ndamuma dama nuur ci neer yi leeri baral amoon a lëndëm ci kaw lëndëm taras xaw na ñooy dee ci neer waay sam so fekk naa andi leer sidi baral amoon a manga si noog leer ba lañ dajji forel soɗon pariyanganan gongo mbini sidi bara amune manga sinnom lerba nayi dajji forel soɗano sosasanan alingata kosi bara amune manga sinnom lerba nayi dajji forel soɗan siri sanan barke fapes sidi bara amoon na ani ceeb ani mbaaraam njaaraama jërëjën jëf merci sidi barham mboolem xel ya ñu ngay rafa sidi bara amoon na joolaaya naan ca leer ga ngay riiti joolaay daw fa jooko anitu sidi bara amana piccam xàpp dërëm ku ko def maas mu damu say laaf doole amut xaami wattu leen xam naa dañuy daal di rek dugg si biir fi nga xamante ne nii fa la ñuy ne moo nekk tey euh, fa la Mawlana Cheikh Ibrahim ganee àdduna ñu xool nan la ko ta taalibe bàyyi di dundee waaye tamit nan lañ fay dikkee pour jox orma kër gi ñu ànd ak yéen si liggéey bi incha allah Sidi Barahama ne gannaaw dund gi dee ca topp baleen xel ci dem soldaar mu jëm foo rappel Sidi Barahama ne garab dee moo da ñàkk a juddu dee gi duñ ko galan loo gis ba bëggeen ba na Sidi Barahama waqi ndundu dee koy widdi balare quartier dembo garde cosse garde départ sidi bara hammane guddeg beccek fajara koy hatte mom lam duwon mom bu jant fenki lindem bimin sidi bara hammane